anche che sono primo. Dai. Adesso lo lavi un léegi ci mbuus bi mbuusu poobar bi ma jëndee Auchan <laughs> ci lañu tànn yi nga xam ne nuruwul poobar ndax dafa dëgër mel ne ay per ñu jël ko xooj ko gis nga soo ko xoojee ci li ñu tànn nii soo ko xoojee moo nekk nii ci mbuus mii la jóge mu ngi nii ñu tànn ko yi ci nuroog per dëgër moom lañ def nii ci boolu inox bi voilà def ko ci ndox mi gis ngeen bu ñu ko raxasee ni ndox mi di ñuulee bu ñuulee gis ngeen per yu wéx yi ci génn hmm? ta sa loxo li nga defoon sànq am na kii yu weex yi gis ngeen dafay furi def ay per yu weex donc apparemment dañ jël ay per yu weex teindre ko xamuñu nag ban matière lañ ko teindre mi ngi nii soo jëlee ki yu weex yi dafa dëgër indi beneen gis ngeen per yaa ngi nii bombal bu baax gën a per yaa ngi donc ay per yu weex la genre lu melni ay perle blanche mom lañ jël teindre ko ak xawma ban matière jaxase ko ci poobar bu baax bi donc gis ngeen lii baru poobar bi ma jënd ak 4000 3990 veille tabaski dans une grande surface de la place que je ne veux pas encore nommer ci lañ ko génne li ñu ci génne yëpp moy li nga xamné dafa dëgër melni ne per dañ ko sotti xalé yi tann ko li ñu tànn nii lii ci bolu inox bi perle ay perle mi ngi nii gis ngeen buñ ko xojé ci ndox ni ndox mi di ñuulé ñuulee pousatul sa ndox gis ngeen ndox mi ñuul kukk donc ken xamul ban matière lañ ko peindre ay perle yu wéx lañ jël mi ngi ni moom ngeen gis ni ci ñu raxas voilà jël ko peindre ko donc mi ci marché bi parce que du rek ci grande surface bobu ki ko njëkk gis wax ma ko Joal la ko gisee

voilà pour que def ci attention ku jëndati poobar voilà merci beaucoup